Euh, je trouve que c'est une bonne initiative mhm. parce que nous sommes là pour aider la population, plus particulièrement les personnes qui n'ont pas, de soutien, qui sont là, qui ont travaillé pour la nation et qui ont perdu leur famille, leur mari, leur soutien. Donc, instant, et ce qu'on veut, c'est surtout promouvoir les activités des femmes, leur permettre d'avoir euh, de, de, ne pas avoir à demander, à entreprendre et à pouvoir en bénéficier pour leur famille. Mhm. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Mhm. Alors concernant aussi euh, les, les, les, mamans qui sont là, mhm. alors euh, la plupart d'entre elles, vous, avez, vous avez euh, comment dire, euh, donné à leur classe euh, des outils informatiques qui leur euh, permettront peut-être de voir ce qui se passe réellement dans le projet. Alors est-ce que êtes-vous prêt de les mieux expliquer le contenu Oui, c'est une seconde phase. Après, l'unité, c'est d'une ñu ngi leen di jàppale ñu gën a xam euh, fonctionnement tablette bi comme ça suñu mun dugg si plateforme bi comme ça ils pourront plus être indépendants te di ngeen mun a de surcroît discuter, parler de ce qu'ils veulent mhm. personnellement. Mhm. Donc mhm. euh, Concernant les aides que vous euh, avez remises tout à l'heure euh, à leur endroit, est-ce que ce sera une continuité ou bien... Non, ce sera C'est notre premier rendez-vous. Inch'Allah, on préfère continuer plusieurs meetings. On aura plusieurs rendez-vous. Merci. Pour terminer, quel conseil donnez-vous aux femmes sénégalaises d'une manière générale pour qu'elles puissent travailler davantage avec des ONG ou bien des associations associations ou bien euh, des, des, des, des, grandes euh, euh, comment dire, fondations comme vous. Alors, euh, quel message lancez-vous à notre endroit S'informer déjà, s'informer, après se développer sur le plan euh, technologique, parce que ça, c'est ça la base actuellement. Et aller de l'avant, c'est surtout ça, s'informer. Alors, oui. alors, waa onze billahi min cheytaan yëpp laa xoola wala xoota illaa billahi al azim ginnaaw bi ñu sant yàlla jur suñu gërëm suñu ñaari waajur euh, dama leen di gërëm yéen presse bi ñu fi jot a teew même contexte bi li muy métti métti def ngeen tu pour déplacé euh, li may wax rek mooy suma teewaay fii ñëpp xam nañ ko parce que ñëpp xam nañ man dama nekk policier di bëre ba pare di def li ñuy wax social Euh, koo xam ne ko xam Ousmane Sy DG Ousmane Sy l'inspecteur général de police xam suñu diggante maa nga xam ne moom li ma mooy chaque jour di def relation publique may gërëm en même temps aussi commissaire Guèye bi yor relation publique képp ku mu sa relation publique rek chaque jour da ngay ak yow li ñu fi tey mooy lenn dañoo yor ay vœux parce que ñun xam nañu policiers yi dañuy dund bàyyi fi njaboot parfois bu génnee àdduna fi bàyyi man sama objectif dafa nekkoon mooy ma projet yi nga xam ne maag alternance Sofi Seck même ñun bu ñu jógee service social képp ku ñëw da continuer ak ñoom bu ma ñëwee nag am partenariat ak waa nu wóor ñoom benn projet bu ñu fa a def en mois de juin war a def return ñoom ñu sollicité en tant que sportif ne ma dañu bëgg a collaborer man parce que man manager sportif la am dans agent marketing man leen aussi duñ si yem ma leen di boole ak police ngeen collaborer en police en même temps kon man maay coordonnateur sécurité bi en même temps ngeen jàppale foofu police mu nekk benn partenariat bu ngeen nuyee ak waa police nga xam du waa Big Pato rek ngeen liggéey Big Pato bi te boo bi ñu jox faam yi nga xam high tech parce que man j'ai même été surprise parce que man rencontre bi la waxoon mais vraiment sama

xool ay sénégalais wala ay jeunes africains yu am projet ñu financé leen je crois que loolu am na problème mooy ce projet je return projet boobu nag man dama ci bokk maa ci yor ñaari pàcc mbirum sécurité bi war a coordonné en même temps aussi lamb ñi ci war a organiser ci festival mais man dama lépp lu may def dama bëgg police di ci gis boppam dama bëgg Sénégal di ci gis boppam moo waroon nag sama bakkan moom ma joxe ko ci loolu bi moom bakkan bi maa ko joxe ci projet bi <laughs> waaw loolu mën na ñëpp dégg